jublu ci ay combat jublu ci ay làmb jub waaw te làmb ji incha allahu rabbi dinañ ci am ndam xam nga li nga wax rëy na di wax man du ma waxantu Babacar Babacar musuma la wax lu may waxantu combat moo Modou Lo Modou Lo Balla Gaye waxuma la ni combat bi dañ ciy am ndam ma waxoon dama ne la làmb lañ jëm làmb ju metti mais làmb ji Modou Lo incha allahu rabbi day daan yow kon maanaam day daan ci nan. non doon xam loolu. allah laa ak yow côté boobu. waaw non dama dama lay waxal dama lay waxal. Eumeu Sène Eumeu Sène mi yor couronne roi des arènes bi muy premier sorteem dugg ci cadre boo xam ne dama bëgg ñu waxtaan tuuti rek dama wax benn cadre gis nga bi ma ko xoolee léegi mu xool gaay yi wallahi billahi ci koor laa nekk dafa aalu dafa am aal Modou Lo bi mu xoolee vidéo bi xool ñi mu toogal ñii xool gaay yi doon nañ benn. alu jëmale ci borom Tay Shinger. incha allahu rabbi. li mu tegoo bu ñëwee ñoom nekkaa ñoom Pape Mbaye ñoom Ndiouga Dia ñoom Ibou Diouf dinañ ko teg ci yoon combat bi dina wute combat bële combat bi Rock Énergie ñooy doon benn famille mbëri lay kontaagal ak ak 100 pour cent parcelle ak booy yii lay àndal di contact di liggéey ba làmb ji ñëw buñ ko takkul benn téere dina dugg bëre lu rëy daan lu rëy ñu ñibbi si parcelle bu soobee yàlla Ah, d'accord xam naa ne fi mu ne àll nga waxee ak sa yéene waaye tamit dafa am loo xam ne est-ce bàyyi xel ki nga xam ne ne ku ko dóor yet bi abal ko mu fayu te da nga koo daanoon Eumeu Sène fii lañ ko daan ngembalee muy bëre parcelle ñu ko doon ngem ñun danaan ñëw fii ànd ak ñun ñuy bëre ñoo bokkoon benn écurie muy ànd ak ñoom ñëw kër maam dasu fa la daan takkee ngemb génn buntu kër ñoom Modou Lo bëre di daan champion bu mag la kon da ngeen koo xam non champ xam nañ ko bu baax te champion bu mag la defe naa ko yaa ko jëli mu ne moom Ama Baldé nee na loo Lo même ay bekke bu ko yoroon danañ daje ci angle bëri. non mais xam nga daje ci angle ci géew la ñuy daje. waaw maanaam daje rek la wax quoi. xam waa loolu loolu mi ngi suñu kanam ñun li ñuy nekk mooy combat Modou Lo Eumeu seen yàlla waaw nee na même bu ngeen moom bu maam Ama bu ngeen bee Eumeu day daan mu. non Ama moom waxuñu ay waxam xam nga tey loolu biti la fanaan li fan li xew mooy moodu Eumeu seen roi des arènes. mais amaa li tax mu ñime leen du ngeen ko lii. Ama laale woon nag Modou ñun ñoo ko ñun ñoo ko tëgg fii lañ ko tëggee woon Zamkana ko tëggoon laale woon nag moodu dañoo bëgg laale waat ñaari xale lañ yàlla dina leen boole ñu laale parce que Modou bëre mooy métier dina laale Ama. mënul ñàkk dana laale ak Ama dana laale xale yi fi ne yëpp. ñoom booy ña. tout le monde dana laale ñoom. xale yu Pikine nga yaakaar laale ak ñoom wóor na. Modou dugg na Pikine duggaat fa duggati fa Eumeu Sène le 28 euh, juillet danañ leen langal langaloon nañ leen kele bu ne génn na fa bii nag bu kenn dama doon soox bu kenn dama feebar bu kenn ne da nga dara waaw kenn làmb la rek ñoom ñaar lañuy ñuy ëffal danañ bëre lu metti danañ xeex lu metti te làmb bi ñii ma gis nii ñoo ko gën a bëgg Modou